Sonko ne fii ci Touba bëri na ñoo xam ne ñoo ngi woon ci coalition Yewwi Askan Wi dem nañu fekki Benno Bokk Yaakaar waaye nag loolee du tere ñu am defet bu rëy fii ci Touba ndax fii ci Touba nguurug wax na ne dugal na fi ay milliards ci lu jëm ci wàllum inondation yi waaye gis ngeen dëkk bi ma ngi tooy ba maara détail yi Sonko ne dund gi dafa cher ba jéggi dayo te nag bëri na ay ndaw ñoo xam ne ñoo ngi fii ci kenn lijjantiwu gi di Rewmi ne Ousmane Sonko yëkkati na ko wax ne coalition yu bari ci opposition bi Macky Sall la ñuy liggéeyal ñi nga xam ne ñooy waa aar Sénégal Tall ñoom Thierno Bocoum daal nañu koy tontoo Thierno Bocoum nee na Ousmane Sonko waxul dëgg te Ousmane Sonko day fen te moom ci boppam xam na ne sax day kàcce manipulateur la kàddu yi Thierno Bocoum la ba tey ci biir journal bi bokk gis-gis ñoom Pape Diop Aliou Sow daal nay tontu Ousmane Sonko daal na koy wax ne yàlla bëggul ay fen yéen kaay gi di réew mi quotidien Assane Samb nee na bii nga xam ne dafa xaajali ko loolee gàllankoor rek la leen di indi la Pape Diop moom ma nga woon sa diwaanu nga xam ne mooy tête de liste moom nag nee na Ousmane Sonko bu bëggee ñu débattre ay condition laa koy tegala te condition yi bu ko Ousmane Sonko remplir man ak moom danañu débattre bi ci njëkk mooy mu daal di nag renoncer daal di wax ne génn na ci violence yi nga xam ne moom la nekk ci réew mi ba pare nag ñaawlu doxalinu MFDC wax leen ñu daal di seeni arme ba pare teg si moom Ousmane Sonko respecté li nga xam ne mooy sunu institution yi wax ay jege ñaaleem ñu bàyyi kilifa dina yi nga xam ne ñoom la ñuy saaga lii lépp bu ko Ousmane Sonko respecté a kaay day gagné li nga xam ne mooy campagne populaire bi ndax nee nañu leadership bu Ousmane Sonko mujjee naa nekk lu universel lu incontournable te nag fépp foo xam ne jaar na fa moom njiitul Pastef coalition Yewwi Askan Wi mbooloo mu baree bari ñooy génn daal di koy topp Aminata Touré ñëwoon na ci département bu Bambey El Hadji Dia mi nga xam ne mooy jiite comité électoral départemental daal di génne yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi ak ñi nga xam ne nekkoon nañu ay jamono Ngom daan nay rafetlu bu baax a baax unité bi am ci benn bokk yaakaar ci département bu Bambey yéen a kaay gi di la vrai journal ñu xëy fekk fa Pape Modou Fall moom daan nay lancé opération yokk doole yéen a kaay gi di la gis ko nee na démonstration bu mag la Pape Modou Fall directeur emploi def ci meeting bi nga xam ne ñoom doon nañu ko amal ci diiwaanu Médina yéen a kaay gi di teral xëy séq waxtaan wu yaatu ak Souleymane Ndiaye mi nga xam ne mooy directeur infrastructure aéroportuaire daan nay wax ci bi nga xam ne def nañ ko ci diiwaanu Saint-Louis aéroport réew munta développé te amul infrastructure yu am qualité nekk ci norme yu wóor yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na Benno Bokk Yaakaar soo moytuwulee dinañu perte Linguère ndax mouvement foo deful be jóge na ci Benno dem na ci Yewwi ndax ñoom nee na nañu Macky Sall amul considération si ñooma Birame Souleye Diop Thiès Yewwi Askan Wi nee na Benno Bokk Yaakaar ñàkk na élection yi te dara xewagul yéene kaay gi di évidence nee na coalition Yewwi Askan Wi ba ñuy dem ca diwaanu Bambey ay dëmboo ca moo génne nit ñu bare bare nit ñu takkoo takkoo El Hadji Ousmane Kana fondateur APR ci Bambey jóge na ci Benno ma nga ci yeewee yéen kaay gii di Walf Fadjri nee na élection yi du yomb ci pouvoir bi du yomb ci Benno Bokk Yaakaar bu passé opposition bi am na yeneen opposition yu fi nekk maanaam inondation bi loolee opposition la dundu gu cher gi yéen gii di 24 heures nee na yi ana milliards yi ñu si dugal yéen kaay gii di Sud Quotidien nee na campagne électorale bi juróomi fan moo ci des diwaanu Diourbel Ousmane Sonko yàkk ak Rewmi Quotidien nee na Pape Modou a mi nga xam ne moo rëccoon mi ñuy tuumaal lu jëm ci force spéciale teg nañu ko loxo ci diwaanu Touba ci gox bii ñuy wax daadu Daaru Karima moom a akub gelam yéen kaay gi de L'As ak Le ñu xëy duñu xibaar nañu nag déggoo bi nga xam ne am na diggante Russie ak Ukraine ba ñuy commencé waat exportation céréalière loole nag ndam loolu rëyee ci Union africaine waaye tamit ndamul Macky Sall la yéen kaay gi de Libération nee na ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi seen oyi dinañu amal 48 heures yoo xam ne dañu koy gerew journal bi di sunu lamb nee na dimanche ñu